sant maa ngi siyaar. maa ngi delloo siyaar. alors nga bëre euh, nul ak ki nga xamante ne moom mooy Diène lan moo tax combat bi tëjul. dégg nga lu tëj combat bi keroog lu tëj combat bi. combat bi bi ma teg moo ma tëj rek moo ko tëj. mais bi ngeen demee ngeen tolloo avertissement est-ce que waroon changer pied. non moom nanguwul changer pied moom. dégg nga moom de xam naa li ma ko tegal arrangé wu ko moom. mais man lu mu teg arrangé na ma. waaju waaju yëpp ñoom ñoo topp rajo yi man nii laa mos a ñoom moom moo changé ma ne la mais nii laa mos a bëree. mais aussi di xaar jël euh, aussi ñëwul yow tamit demoo est ce que est euh, xaar loolu aussi. waaw parce que man yaloo ma yaloo ma su may sa combat ñu may indi dama nii ma bëree noonu di si am ndam tey combat jot ñu ne ma bëree nii moom tamit ñu yebee ko noonu ma ñëw mu mu concentré wu si liñ koy yëpp man loolu yemee ma la saa su may kilifa fan nga xalaate dem fu mu toll nii. waaw alhamdulilah rek man maa maa ngi toog di déglu rek parce que man li ñuy wax si am naa ko mooy mobilisation am naa ko mu doy. alors euh, ban mbër moo nekk sa kanam fu mu tol nii. fii koo fi tuddee turam day yaakaar da nga ko man daal maa ngi pour làmb lu ma làmb jox ma jël lu ma làmb jox ma jël. jaajëf amal jàmm yow.